وما زلنا أدنى أدنى خنجم سموات الشفور بكو في غداو لعنة

jërëjëf euh, jaajëf Abdoulaye Diop jërë ngeen jëf Yacine Pouy internet ak auditeurs yi déglu RFM 94 point 0 la rajo de toute l' la rajo du Sénégal ah stade du Sénégal la rajo du Sénégal euh, yéen a ngi seen journal des faits divers xalaas ànd ceeg euh, Mamadou Mohamed Ndiaye. Eh, xam ne heure bu sentiree ko toog noppaliku woo ma ma ne ko njaay la dal mu ne ma daara sonn rek di noppalu ko na yàlla defal la jàmm loolu moom nga déclaré ci rajo bi <laughs> yàlla na yàlla defal la jàmm eh, waaw damaa eh, bëri sutura passe maa ngi lay kontaane sama waay waaye balaa ngeen nuyoo mhm. jox kilifa gi mu nuyoo ba noppi salaamaaleykum kilifa gi nga lay siyaar bu baax Ndiaye. problème nga yéen a njaay kilifa fi toog kan la. Ndiaye yow la. ah d'accord ah loolu la <laughs> kay wax ñun de ñun de te kilifantu. Ah, yow kilifa. Ah. <laughs> maa ngi lay nuyu Ababacar. ñu lay fay maa ngi sant waa Sénégal. maa ngi leen di gërëm ah. Mhm. Euh, li may faral di wax rek boo toogee ñëwoo xalaas. Mhm. ci ngay gën a xam njëriñul xalaas. wallaay dëgg la. yàlla nañu yàlla defal jàmm sàngu ñu sutura dooleel ñu bëli nit ñi di xaar ci ñun saa su nekk rek ñu mën koo matal amiin yaa rabbi ah? amiin yaa nga damaa noppalu ji woon ah yow de ci nga dëkk amal nga ma weccet de <laughs> ma nekk di détaillé nag waaye amal Njaay eh, man de ah, dama la koo teel man day ba ma ba nga ñëwee ni ma am ñaari billet daa jël ma jëlaat sa xaalis ne la am nga bañ man ci daal man man ci daal li parce que bi nga ma jox li nga ma ci wax yëpp dama laa jox sa xaalis nga bañ ci kanam ay témoins yu bari waaye yooyu tax doo koy def chaque jour waaye ah, yow Njaay loolu dafa mitti réew mi soxla ah, dëgg la nag dëgg la surtout ci place yu mel noonu waaw toog abaa deel woote ndaje yu mel noonu waaw waaw dëgg la de problème na ci de jaay bi coono yi ma ci daj. mën nañ laa jaay. <laughs> problème bi mooy entrée cinquante mille la woon. dëgg la te man lekkuma fa naanuma fa. dëgg la xanaa ñu ma wecci. Kumba maa ngi ko doon bàyyi xel de Kumba. waa ah, waaw nañ bàyyi noonu. <laughs> Fass maa ngi lay ziar sama waa sama gars yi man na moo ni mhm. maa leen di ziar bu baax Ababacar leen nuyu di nuyu mhm. de tous les jours mhm. l'homme fort ma rek ma nuyu partenaires yi ba léegi waa Sénégal ñu yoo fu nekk doore ci partenaires yi nga xamante ne ji dañu ànd xalaas ak ñun ci saa su nekk Optique Vision Plus Sénégal di ànd ak réew mi di gunge waa réew mi yow yaa wax sànq la rajo du Sénégal waaye lunetterie du Sénégal mooy Optique Vision Plus Sénégal ndax li réew mi soxla lañ garanti ba noppi accessible fépp foo dem ci réew mi bu dee fii ci Dakar showroom bi mi ngi si presse 2 dend ak hypermarché exclusive Optique Vision Plus Sénégal am na Kër Mbay Fall boutique Optique Vision Plus Sénégal am na it beneen boutique Optique Vision Plus Sénégal bu bees tàq boo xam ne Touba fa leen ko defal en face Kër Maam Muxtala mm. lu ngeen soxla ci ay lunettes lu ngeen soxla ci ay conseils lunettes lu ngeen soxla ci accessoire lunettes bu ngeen demee njëriñu mu di euh, café Fulbert café Fulbert nga xamante ne ji euh, grainu café yi gën mm. mu bàyyee ko ba Cameroun la ñu jël liggéey ko ba mu baax da ngay jël segg boobu ba léegi réew mi ngi koy waxtaane ma naan leen am na lu ma dégg ñuy wax ci café Fulbert mm. ndekete euh, dafa bari yu ci nekk mm. café Fulbert nga xamante ne ji ñoom sax jox nañ ma pour ma jox leen boo demee esel ko aba waaw li mooy café Fulbert mm-hmm. am na am na café Fulbert am na un kilo mm-hmm. am na cinq cent grammes am na deux cent cinquante grammes Ndiaye ngeen ngeen essayé ko suukar ko. pro étoile bi ma da ngay segg rek. Mm. da ngay segg rek xanaa sélectionné Cameroun étoile. mi ngi noonu ku ci bëgg <laughs> ci café Fulbert yi. 77 512 41 26 76 183 92 98. wala 33 823 09 98. Ablaye Diouf bëggoon naa la jox sama bos mais comme yow moom kénkeli baa la gënal café. day faral di kaas sax lan moo tax lu ñu fi indi mu nekk 3 ak yooyu. buñ ko ci yokkee yokk ci Pouy Yacine yokk ci keneen ak keneen ak internet yeeg auditeurs yi donc bàyyil ñiy feeñ rek ñoom ñi am. waaw te ñuy euh, ku ci mën a bokk ak yow rek segg indil la. en tout nañ ko nañ nañ ko essayer. ah ah, ah, ah li ngay wax noonu mënta génn ci rajo bi de. <laughs> ayca Ndiaye. yaa ngi dégg boobu ba léegi ci réew mi ñuy waxtaanee téléphone portable mi woon téléphone portable mi wan ndax euh, lépp loo bëgg ci téléphone bu baax. Mm. téléphone bu garanti téléphone bu dinaa xuma mu jox ma benn ma jox la ko nga essayé ko comme yow. Mm. Euh, il faut yow mu munoo ceex yow yéen waa Techno. mu noppi leen mais yow Passepartout. <laughs> dinaa wax xuma et mu jox ma téléphone mi wan. Mm. li ma lay conseillé nag mooy A60 bi. xam ne 47000 kese lay jar. 4G Android 9.0. 6 virgule 26 pouces mémoire 32 giga RAM 3 caméra 16.0 loolu mooy euh, Mi One a am na a am na mais dinaa la wax bu subaa téléphone bu nekk lu leen différencier li ma la ci mën a tegal daal mooy képp koo xam ne bëgg nga ci téléphone Miwane yi. Mhm. mën ngaa dem Colobane ci Xuma et frère wala nga dem Colobane ci Cissé et frère nga dem Colobane ci waa Kër Xaadim Rasoul Fal euh, Fal communication. Mhm. Euh, mën ngeen ko am foofu am na yeneen nag mi ngi fépp ci réew mi mais yooyu laa lay jox ñu koy jaayaat jamono ji foofu ci Colobane. Mhm. bu subaa ma wax la boo ko bëggee dem Sandaga Grand Yoff Parcelles Pikine Touba Ourossogui Kaolack Ziguinchor ban mooy téléphone Mi bi. Mi baa ngi noonu bu subaa nañ la jox nga essayé comme lu fi ñëw rek yow jox nga essayé. montre yeeg yaay suñ ko bàyyi montre yeeg verre yeeg yëpp yaay essayé puy puy déet dimbali leen ma waay loolu ngeen def ci bu ngeen bindee aba no stress ba noppi ci sama émission boobu may waaj def léegi ci kanam ay le showman ak ay le polyvalent yooyu yëpp dindi leen ko l' animateur du Sénégal comme stade du Sénégal l' animateur balaa ko kenn di jël waaye ngeen dimbali ma ci waay ak rajo du Sénégal ak rajo du balaa ci léegi ngeen jël ko def leen man gis nañ fi le chanteur du peuple gis nañ fi animateur du peuple def te di Sénégal waaye balaa ko kenn di jël. dama xam ne rajo euh, euh, Télé Ndiaye boog defat nañ seen mën rek. ban fan ban dara ba ña. kii waa ñee fee. triangle waaw luñ defati. ah accaparé nañu suñu xew mi. xew ma. xewu suba bi. TFM taq ci rip nga am xew suba bi. yow kon xanaa yëgoo lu xew. lan moo xewati. RTS nee na. Hmm. ku ko bëgg signalam ngay jël. ay ligne ligne éditoriale ngay jël. waaw la mu teg moom ngay jël. ah waaw amul ay teg fii Abba wala Mohamed Ndiaye muy wax mani nag TFM nag euh, wax dëgg yàlla ma naan RTS nag wax dëgg yàlla mooy nday di si télé yi nag nan ko nangul li mu doon nag. waaye da tëddee ah, njaxaanaay man nag gis nga bu ma énervé bu commencé am. ba jox kenn nee na nañ jël ñëpp léppam mais nañ. nañ tëddee njaaxaanaay Abba li xew bi ñëpp ko bokk Sénégal ko moom. waay Sénégal ko moom tax télévision Sénégal lañ moom lañ koy jox lii mooy public yii yëpp ay privé la ETS moom dootuma nangooti ku ko laal feneen fu mu ne. mais xam nga luy problème bi. Mhm. mooy bu ñu yekkee ñu waaye ETS. Mhm. ba ci bëlaate. Mhm. dañoo war a jox nit ñi seen ceeb ak seen lujum. ñu xool nu ñu séddalee waaw waaw waaw. d'accord naa événement bu ni mel ñu jox ko télévision publique. waaye nag bu mu sàkkal nit fu ñu yem. Hmm. tey bu ñu bàyyee télé privé yëpp ñuy lëcc lëcc ak seen i caméra ak seen i micro ak seen day xaw doy waar. Hmm. donc kon ñu jël signal RTS lu jaadu la par contre nag li ñu mënoon a ñàkk mooy. lay jàll RTS. moom ngay jàll sa télé xaw ma techniquement nu ñu ko mën a lijjante ba RTS di joxe ñoom ñuy seet nu ñu jàllalee. mais xam nga aussi tamit événement yu mel ni aussi dafa dafa bari yu laaj. mais mais daal kon RTS boo bëggee euh, fi ñu toll nii boo bëggee dégg-dégg mooy bu subaa Euh, programme ku ko bëgg a teg RTS ngay nekk. waaw <laughs> mais comme nangu nañ koo joxe rek baax na. yàlla baax na comme nangu nañ koo joxe rek damay na bëgg de yaay damay na bëgg nag ak fu mën a yem damay na bëgg événement yi lan am dañ ci xar seen tànk tubay def ci li mu mën lépp. profité ci événement yi lu xalaas gi wax. profité ci événement yi stade du Sénégal la. jaay seen bopp force jaay seen bopp par force. waaw ah, loolu moom ma daan TFM bi mooy mooy mooy télé publique aussi. dëgg la de dëgg la de loolu moom waaye njaay nag télé publique buy concurrence télé privé nag moom saa yi. waaw loolu dafa war a def de waaye man it RTS la àndal de ah loolu de ko bañal nag. man ànduma man ànduma ak ñoom man ñoom laa àndal de. Hmm. Hmm. xam naa ni xam naa ni yàgg yàgg fa laay ñoom laa àndal de. <laughs> fépp laa man Ndiaye man mënumaa toog eh, kii na nga ni lan la nga ni ñii naan ñii ñoo ne ci yoon. te da ci juriste yi lañu jëm sax. ayca Ndiaye. Mhm. Ndiaye ñii de ay ay juriste lañu. Mhm. nee nañu ñoom ñoo ne ci cabinet avocat yi. Mhm. lépp loo xam ne mooy liggéey. ci cabinet avocat yi ñoom ñoo koy def ñooy bind ni euh, nga koy wax de seen seen yooyu ñuy ñuy taxaw di wax seen plaidoirie yeeg seen maanaam daal ñoom ñooy def liggéey bi yëpp. Mhm. ñooy dugal xaalis ci cabinet bi. Mhm. waaye daal ñoom te ay cadre lañu ay cadre lañu. Mhm. mais amuñu contrat ak avocat yi avocat ay cent mille lañ leen di fay rek cent cinquante mille. mooy ña mooy juriste yi nekk ci cabinet avocat yi. laal fuy metti nag. ñoom ñi ba dañoo sonn situation bi. ay déglu. di wax rek nan ñun ay ndaw leen ah, ñun ñoo nekk les juristes des cabinets d'avocats ñun ñooy nekk ndaw yi yor dossiers yi ci cabinet d'avocats yi di gérer dossiers yi ñun ñooy euh, yi assignation yi ñun ñooy bind plaidoirie yi ñun topp dossiers yi tribunal ba am ci ndam ñun la maanaam gàttal ko ñun ñooy xool li cabinet d'avocats yi se trouve que ñun amuñ sa contrat contrat travail sax duñ ko am cabinet d'avocats yi duñ defal contrat travail salaire bu gën a ngand ay cent cinquante mille la cent cinquante mille wala cent mille si juriste imagine liggéey euh, allo cabinet bi si weer bu nekk ay millions ñu koy fay ay cent mille ba cent cinquante xam nga loolu c'est déshumanisant maanaam lu xamante ne la rafetul rafetul te man juróom-ñaari at laa def si cabinet d'avocat mais inspection de travail ñëw di xool ñu suñu condition de travail gàttal ko rek mooy ñun ñooy ñoo xamante ni dañuy plaider ñu ñoo xamante dañ leen noot alors que ñun ñu suñu bopp dañ dañ dañ noot

en attendant ñu nekk avocat ñu réussir ko kon test baro bi pour ñu nekk avocat loolu moo ñu fa bàyyi mais en attendant moom instant bi moom ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu ñu massacré waaw instant yi moom ñu ñu exploité bu baax a baax a baax a baax a baax ñu ñu a bu baax a faut que état bi wax ci loolu il faut que état bi wax ci loolu mënoo di di dugg tribunal ay sept ñëw sa sa cabinet euh, sa bureau ay ay quinze war a jël say dossier jeexal say dossier yëpp traité ko requête a bind conclusion yi a bind may plaidoyer a lépp xarañtul ci war na bi nga def ko nga egg sa vingt deux heures gën wala minuit gën naat encore six heures matin pour na egg à tribunal sept heures na nekk si si cabinet d'avocat yi kenn ñu mul wax nag ku ci wax rek ñu dàq la ku ci wax rek ñu dàq la te dañoo solidaire seen biir suñ ma dàqee fu ma nekk nii fu ma dem tam kenn du ma fa jël beneen cabinet d'avocat du ma jël parce que dañoo solidaire lii la ñuy ñun les juristes yuy liggéey waaye ëpp ñu diplôme ëpp ñu lijaas lan rek la ñu ëppale mooy ñoom am nañ eh, titre pour eh, avocat maanaam am nañ autorisation eh, sol robe bi ñun amaguñu ñu ngi ñuy exploité exploitation boobu bu jéggi dayo bu jéggi dayo situation bu ñuy dund nii mënu continuer parce que chef de famille un au cadre au cadre autant moi ba si nekk chef de famille di am cent par weer si ce n'est pas une situation déshumanisante je ne vois pas quelle serait euh, ban situation mooy nekk une situation déshumanisante c'est une situation alarmante que nous vivons. C'est vraiment alarmante, alarmante. Parce que, imagine, euh, euh, un, juriste comme nous, nous gérons ce qu'on appelle la conformité, le dossier, les contentieux des, gros clients. Le cabinet, euh, avec le poids qui, pèse, c'est nous-mêmes, nous sommes, le cerveau du cabinet. Mais malgré tout ça, nous, recevons, nous ne percevons que 100 000. Et sans contrat de travail. Aucun. Sans contrat nga loolu <laughs> chef métti na moo tax daal di saisir la encore rek nga tasaareel ma ko kuñ si mën a jàppale dama man am euh, bugg conseil c'est société maanaam ku soxla un expert juridique un conseil juridique c'est société dëgg yàlla pare naa pour pour ko parce que situation bi mënatul mënatul wéy métti na lool lool ba fu métti yem maanaam lépp lu xamante ne du du ñun ñoo koy bind quoi les da nga euh, ñun ñoo koy bind A ba xaalis bi dugg si dugg bi lépp ñun ñoo koy def quoi maanaam ñun comme lenn mooy suñu différence ak ñoom kon la ko expliqué waxee sànq mooy ñoom sol leen rob ñun solo ci rob ah mais sinon loolu liggéey bi cabinet bi ñun ñoo koy liggéey liggéey cabinet bi yëpp ñoo koy liggéey ah, avocat moom tur la rek si cabinet bi. Hmm? du dégg de. lii de mooy góor gu yuux. waaw wax dëgg nag Ndiaye nag kii kii kii daa jooy rek Ndiaye réew mi gëm nga am ñu ñu fayoo 40 000 weer. am na sax ñu fayeekoon di liggéey te fayeekuñu am na ñoo xam ne suba ba ngoon jot li ñuy daj doo ko daj waaw te duñ fayeeku dëgg te ñu ngi liggéey ñu ngi liggéey ah, ñu liggéey kay dam caaxaan weesuwul loolu lenn rek laa nanguwul hmm. nit di liggéey ci xaalis te fayoo ko xaalis kuy liggéey ci xaalis te fayoo ko xaalis ñaari ak ñaari nga ca ñaari erreur nga ca hmm. mooy àq d'abord hmm. mës ngaa gis ku yor restaurant di fande di xiif déedéet mënul am kay lekk avant ou après waaye da lekk moom baa nga ñàkk fayda lool kuy liggéey ci xaalis da nga ko war a fay xaalis. ba xelam dal. voilà te lu mu fa romb fa la koy bàyyi. Oh. parce que mooy comme ñi nekk ci banque yi nii ay caissière xaw ma ñu nekk ci guichet yi. Oh. ñuy compter ay million di leen tegal ñu koy distribuer di ko distribuer ba ngoon jot ñu wàcc bu weer dee lañ leen di fay buñ ci paasee lekk ci mu jeex. Oh. ameel nga leen àq te seytaane nga leen di yoon. damaa bëgg xam njaay benn affaire par exemple boo nekkee ci benn benn liggéey. Mm-hmm. ñi nga xamante ne ñoom ñooy ñooy ñooy ñooy indi koom. ñoo ci gën a dee senegal loolu mooy problème Sénégal. ñi ñi bi dëgg dëgg dëgg dëgg. ñi indil. waaw ñi ne ca kaw ngeen koy indil ñoo koy lekk. non en fait loolu sax c'est à du pays. Mhm. Mhm. réew mi la xaalis bi demee boor. gis nga lii nii. Mhm. muy jooy nii. nekk ci mbir di ca sonn te amoo ci àq. loolu la jàngalekat yi di jooy. te boo waxee ñu dàq nga paas bu njëkk ba bu njëkk ba sama jamonoy ñoom pap ku nekk école di rey boppam di yéeg ak a wàcc. am nga maître instituteur boo teg ba nit comme kii laa bëgg a mel. Mm-hmm. effectivement mm-hmm. buñ la laajee loo bëgg a doon juróomi xale yoo dajale ñaar ba ñett seen yéene mooy màgg doon jàngalekat. monsieur mm-hmm. doon monsieur. instituteur. mais léegi si c'est tout à fait le contraire. xale boo ci ne yàlla nga màgg ba doon jàngal kan ñaana ma que lu tax dañ leen mm-hmm. Mm-hmm. même chose bon c'est nag dugguma ci ay yi politique ak yooyu de état baa ngi def li mu mën mm-hmm. réew mi xaw a doy waar noonu mais li waa ji di jooy juriste bii yi di liggéey ay millions ñoom ñi nekk ci cabinet yi di gérer dossier yi ñoo koy gérer ba noppi ñoom amuñu seen àq loolu la jàngalekat yi di jooy loolu la animateurs yi di jooy loolu la journalistes yi di jooy loolu la médecins yi di jooy alal moodul doy am ñu koy jéem xam nga luy danger bi fii. Mhm. mooy naqaru xol bii nii. Mhm. mooy topp topp ba ca détenu ca kaso yi. Mhm. parce que peine bi ñu war a def seen liggéey àq bi ñu ko war a jox taxaw bi ñu war a taxaw détenu yi. ko def. Njaay ecole bu yàgg ba ay éducateur lañu woon daawoo wax ay njaay wala ngay wax ay paas wala dara suñu musée rek ngay wax mais léegi xale yi ci turu prof bi la ñuy jaar. Ndiaye wala Diop wala wala Ablaye wala ci tur ba la amatul mit daal amatul mit ci li nga xam ne moom mooy. billaahi mun nañ benn prof boo xam ne madame donc lañ muus lañ leen di wooye. na ay prof yoo xam ne seen élèves yi muus lañ leen di wooye muus. Eh, kii nee na am na ko xam ne du ma ko wax. non kii Aba. Mhm. mu ne jour bi gaynde yi gagné. Mhm. daa gaare otoom xamatul fu mu ko gaare ba léegi mi ngi war oto bi. ak xam kii dafa bëgg wala. <laughs> maanaam ci diggante bi téléphone Kalidou Koulibaly réer na fi feeñ. kii la moo bëgg. bu Nampalis réer na fi feeñ. ñu ngi inauguré stade bi ñu ngi inauguré stade bi. Mhm. gaynde yi ñibbi nañu. Mhm. moom ba léegi xamul fu mu. gaa gëlëm mhm. euh, Ford la matricule bi AA 638 AK Ford AA 638 AK nañu ko dimbale dégg ngeen. kii moom ab passeport américain la réeral moom. baarabal noonu la tudd nee na le vingt neuf janvier entre Parcelles Assainies unité vingt six. Mhm. ba fi nga xam ni moom mooy euh, unité vingt cinq ak unité vingt six nee na képp rek koo xam da nga ko gis ba Grand Dakar nee na mhm. képp rek koo gis mën nga koo woo ci numéro bi waaye man man je préfère nga indi ko fii. Euh, ñu mën koo woo waaw waaw waaw sax Pape Samba jox na numéro bi waaw waaw njubla ngi dañ ciy mhm, laxasu. Ndiaye oto bi oto bi yow daa amul borom moom mu ngi ko njaaloo taxaw Land Land Rover DK 53 71 X def na fa 10 jours. ana fa mu taxaw bu noir la Kër Ndiaye Lo. kon kay Ndiaye Lo yu borom. amul amul borom de. <laughs> lii lan la nga ne yow lii Ndiaye. Ah. jigéen ñi li ñuy dund ci ñàkk am doom kii wujjam moo ko menacé woon ne ko dafay am doom vingt ans amul doom. lii loolu. wujjam. waaw ah. bañ ko takkalee wujj maanaam moom ñaareel la bañ ko takkee la aawo bi ne jëkkër kii boo ko fasul dafa doom vingt ans amul doom fu mu dem ñu ko liggéey la. Hmm? léegi yamul ci ñàkk am doom bi aw ba dafa dem takk xale jëkkër ji moo la ko wax moom moo ma ko wax kii moo ko wax waaw ne ah. moom moo ni moo ne mu ne waaw aaw bi dafa takk xale jëkkër ji bu ñëwee ci moom day paan. Hmm, du am mat. waaw yaa am mat day samp niil. am na awa yoo xam ne fondation la ñu ci kër de. Hmm, day forfait bu demee fee day forfait. day laal forfait hmm, ndànk. awa yoo xam ne fondation la ñu ci kër. blessure la. bu ñu xasee ba sampe. laaj ma lu ci topp. lan ah, ah. gaaruwaale yi njëkk yi njaay kër yi. njaay boo ñëwee fii def lom di mat fee nga def forfait blessure la loolu. nan déglu. ah déedéet xaju fi kay déglu. <laughs> ñu na force <laughs> li day am de. day am nga gis nga abaar. Hmm. mais loolu ci solution. Ah, dem faju ji rek. wala nga changé club. <laughs> wala nga dellu sa club bu njëkk ba. yenn saa yi en tout cas euh, bu ñii di ree ñi la ñu ngi am euh, loo xam seen xool du féex. bokk hmm. na ci naata mbay. waaw ah, ah. waaw ñu ngi mm. koy jaal bu baax yaayam ji DJ Boubs ah mm. Boubacar mm. Diallo moom itamit baayam bi ñu ngi ko koy jaal bu baax ak ñi nga xam dañoo euh, ñàkk seen membre famille yëpp yëpp yëpp ñu ngi leen sama benn mastaw bu baax sama bu nekkoon fii ndeysaan am di moom it mm-hmm. ndeysaan euh, c'est rek li yàllay def ndeysaan yàllaa ko xiiroon ci ci ci rajo bi ndeysaan ak ci waa rajo bi ndeysaan euh, moom it ñu koy jaal ay mbokkam am na ci moom mm-hmm. hmm? Abdoulaye Diop ne nañ dem allo président tey xalaas bi nii la jeexee tey.